asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ndoxteelu campagne électorale jëmale ci élection tabu député yu fanweeri fan ak benn ci weeru suleet mooy li soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëya ndool dañu koy door rek ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien mu ñuy xamal ni tabaski bi daal tax na bu bés bu njëkk bu campagne électorale bi daal fësul lool ndax boobule campagne mi ngi door ci dibéer fukki fan ci weeru juillet bi ñu génn bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo bi fare ci avenue Bourguiba daje bi mu dajeek ak ni ñu doon màggal feetu tabaski bi nag ba juróom-ñetti liste yi nga xam ne ñoom la DGE jox dogal ngir ñu mën a bokk ci yooyu la jongante nag bés boobu la daal li ñu jagleel seen programme mooy dem nemmeeku ji yenn ci ay kilifa diine ak it amal ab déclaration boo xam ne dañu ko enregistré woon te ñu teg ko ci journal de la campagne bu télévision nationale ci Touba Mimi Touré bi jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar moom nee na daal bile campagne électorale nañu fexe daal ba xëccoo bi nekk ci wàllu programme ñu jàll ci keneen muy maire bu ci Ziguinchor teg ci jiite parti Pastef les patriotes du Ousmane Sonko ci bésu tabaski bi nag yëkkati ne yile kàddu ci këram da doon gën a firndeel nag li nga xam ne moom la waxoon ci président Macky Sall mu teg ci ne dafa jël ay milliards yu takku takku ci kopparu CFA jébbal ko benn cabinet américain boo xam ne daal li ko tax a jóg mooy fexe daal ba ñetteelu mandat bi daal ñi nga xam ne ñoo faree ci biti réew ak yenn ci ay milliers d'affaires daal ànd ceeg moom ñu des ak déclaration juróom-ñetti coalition yi nga xam ne nag ñooy xëccoo ngir dem ci assemblée nationale ak waa l'observateur ñu jox ci kàddu Aliou Sow bokk ci bokk gis-gis liggéey mu xamle ne ñoom daal dañuy lal ay pexe daal ngir jàmm am suñu réew rawatina nag ñi faree ci réew mi fonk réew mi lool keneen ko wàllu observateur tàllal seen micro it muy Mamadou Lamine Thiam bu wàllu Sénégal muy xamle ne régime mu président Macky Sall daal dafa ñëw caxat caxatee déggoo bi nga xam ne moo amoon ci Sénégal ñu des ci coalition yi nar a xëccoo ci fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ak Mouhamed Diallo bu naataangee askan wi mu ne daal bés bu ñu demee ci assemblée nationale danañu fexe ba nguur gi yokk ñaari yoon bourse étudiants yi Pape Djibril Fall bi jiitee les serviteur moom ne fukk ak ñetteelu législature bi nga xam ne moom la ñu génn daal li ñu doon xaar ci moom defu ci dara ñeneen ñoo xam ne it yëkkati nañu ay kàddu di ay dige jëmale ci askan wi nag mooy El Hadj Ibrahima Mbow bu buntu bi mu ne bu ñu demee ci assemblée nationale mbiru troisième mandat bi dinañu ko lijjanti ba mu set wecc ci jamono joo xam ne jeex Thierno Alassane sàll bu Aar Sénégal ni ñoom nag seen député ñu nar a yóbbu ci assemblée nationale li ñuy xaar ci ñoom danañu ko def njiitu réew mi président Macky Sall di xamal waa l'Observateur ci bu Ndakaaru ne wàllu fitna ci boppam la ñu war a seppi ci campagne électorale bi moo taxit nguur gi daal dana taxaw temm ba du am ñu des ci yooyu leeg fitna yi nga xam ne yenn ci ay imaam it waxtaane nañu ci nit ñuy def seen xutba ci bésu tabaski bi ñuy soññ askan wi daal ñu def tànneef ba gën ci fanweeri fan ak benn ci weeru sulet Sud Quotidien muy xam le ne njiitu réew mi nag moom nee na daal li ko métti mooy jikko yi nga xam ne daal mu ngi soppeeku bu baax a baax suñu réew rawatina nag jalgati yi muy nemmeeku ci réseaux sociaux yi ci jamono jooju nag imaam ratib bu ndar géej di Cheikh Tidiane Diallo moom daal ñu yar leen ci biir njaboot yi naataangoom bi di imam Cheikh El Hadj Boubacar Dramé fare ci Sédhiou moom ni daal bu sañoon yile élection ci jàmm lay am li ni mel nit la imam Abdallah Sall gisee moom mi jiite juma Serigne Abbas Sall ci ndax géej muy soññ ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi ak ñi fare ci ku jege yëpp daal ñu fexe daal ba jàmm bi am ci réew mi oui ñu waxaat ak meex bu Ziguinchor bokk it ci intercoalition wàllu Yewwi di Ousmane Sonko moom nag président bu Guinée-Bissau da doon dalal ñu des ak waa Sud Quotidien bi ñuy xamal ne nag fële ca wurasoo gi moom ginnaaw lakk bi nga xam ne moo amoon ci marché ba lu ëpp téeméeri boutique ñoo tàq ba jeex ñu jógee ci wurasoo gi dellu si fii ci Ndakaaru rawatina ci pavillon spécial bu hôpital Le Dantec ak waa L'Observateur direction administration pénitentiaire ci ab communiqué xam le ne daal Mamadou Seck moom mi nga xam ne dañ ko tegoon loxo jëmale ci enquête ci force spéciale dafa daw communiqué googu nag ëlëm na lool waa l'observateur tàggar yaram dañu koy door ak Sud Quotidien muy waxtaanee CAF Awards bu atum 2022 Sadio Mané Koulibaly ak Edouard Mendy bokk nañ ci fukki ñi nga xam ne daal ñoo gën a fës ngir mën a am boobu lee raaya ñu jàll ci beneen gaynde di Gana Gueye rawatina digganteem ak PSG di équipe am ak waa l'observateur ak waa record génnub Gana Gueye xeeñ na lool li ko positif tekki di entraîneur bu yees bu PSG di Christophe Galtier daal moo bëggul Gana Gueye googule ci biir équipe bi ñu des ak beneen équipe di Teungueth FC suñu naataango yi di ñu xamal ne am na moom it entraîneur bu yees muy bat Badji moom nag ñetti at yu ñu jëm moo nar a tàggat waa Teungueth FC record di ñu waxtaane it Coupe d'Afrique jëmale ci wàllu soxna yi ñuy amal ci jamono ji ci Maroc rawatina quart de finale yi nar a am ci diggante gaynde yi ak waa Zambie gaynde yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaareelu place A nar a jàkkaarloog gaynde yu jigéen Zambie yi nga xam ne nag ñoo nekk ci bopp groupe B bi quart de finale bi ci diggante Sénégal ak Zambie nga xam ne nag ëllëg ak jàmm ci àllarba bi la ñu ngi nar a amal juróomi waxtu jotee ci Casablanca mooy doon quart de bu njëkk ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne moo dajale soxna yi ci Maroc lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm